salli ala muhammadin sayyidul arabi wal ajam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين bokk jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul al cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam li tariqatil muridiyya mu jëm ci kàddu yu nuyoo kàddu yu cant ak i ngërëm ak kàddu yu ndokkeel ci at mu bees mi ñu tàbbi di ndokkeel itam ci xew-xew yu màgg yi weesu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 dana yëkkati kàddoom àdduna sépp dégg ko mu fàttaliwaat bokk jullit yi ak bokk taalibe yi Sëriñ Tuubaa taalibe yi murid nga xam ne ñoom la sañ a digal sañ leen a tere fi nga xam ne fala nekk ak lii ay ndigalam yu jëm ci moom kon sëriñ bi nee na mi ngi nuyu di sant ñëpp di gërëm ñëpp ginnaaw bu loolu jàllee nag muy fàttali lii nga xam ne moom lañ dégmal muy màggalu Tuuba màggalu Tuuba nag ni ko ñëpp maase ci xam day ndigalul Sëriñ Tuuba loo xam ne moo ko santaane woon ca njaareem waxoon ca kàddu yu rëy yam ca waxoon ñëpp dégg nañ ko ndax sëriñ bi kat dafee bàyyi ko woon dem liggéey le rasulullahi sallallahu alayhi wa te liggéey boobee moo tax ñëpp mucc moo tax ñëpp am jàmm moo tax ñëpp am xewal kon bis boobu bii nam ko waxee ca bayitam yu tëddi rek xarajtu yowma sabti rabia safar aw thamina asar li xidmatil muxtaari fi sahri safar kon ni mu ko waxewaat waat rek wax ne sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi kon bis boobu bii nga xam ni mooy bis bu tedd nga bi nga xam ni Serigne Touba ci boppam moo wax ci làmmiñam leeral li ko taxoon tukki xam la it tukki bi lam ci jële ak la ko tax a jóg ak lam ci amee ci ay daraja mooy bis boo xam ne suñ lépp itam ci la defaroo moo te ñu def tanassur te sëriñ bi neewoon na law tanassartu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 mooy ak pay goo xam ne am na fu mu tàmbale waaye kenn xamul fu mu yem mu dim liggéey li rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ànd ak ndam lu rëy rëy loo xam lu mu toll rek gàcce ñoo ko yóbboon toll na ba yàlla def la mu waxoon rasulullahi ba muy jaayante moom ne ko ruu gi de binduma ko ba xam li mu attan ak li waaye bu ko ruu gi attanee rek fit ak jom ji ko rasulullahi waxante mu ne ko imshi laa tax sa darar kon Serigne looloo ko taxoon a jóg leeraloon nay day gudd ndax jataay bi dafa xat la ko taxoon a dem ci géej gi lam gisoon muy cër yu mag yi nga xam ne dafa doona tutoon lu am mu séen ko te ku ko mës a bëgg ku ne boo ci àggee bu ñu la ko wanee yàlla rekk sa ngëm wala nga dem ba ci biir doomaa demate waaye Serigne Touba ci waajal ko suñu boroom waajal moo tax yàlla nam ko ko nam ko waxe woon rek ca ësal la ko suñu borom waxante waru moom ba àpp ba jotee mu jug dëgmal bàyyi njënd yi bàyyi kër yi bàyyi njaboot bi dem digma dëgmal liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam daj fa lu méttee méttee méttee ndax lu ëpp samaaniya xijajin illaa xalilan mu ne ko ca tukki ba kenn wétliku fa ñu néew ko fekk sëriñ gaawan ak sëñ Modou Lo Dagana ak ñu néew ñoo ko fekk foofu kon te ku ci mas ak seet dalay yeeyuwaat la ci gën a yéeme moom xamoon na fi mu jëm ndax lettre bu mos a bind Cheikh Ibrahima Fati day mel ne dafa waroon di séentu séentu ñu di ko ñaanal mu dellusi waaye la mu koy jëkkee wax mooy fàttewuma leen ci ñaan na seenum xel dal kon moom mbiram lépp da koo leer ba yàlla def nag mu dellu si ba njóbbu ko gànnaar mu motti liggéey ba mu fa doon def na mu ko waxee ci itam yi rek man zanna zayri xibba aami ak sasi mithla masiri rasa aami jay sasi sabata kawnuhu jahwalan umra bal huwa tadyibul ali lil umra lam yakun seyru aksasin siwa jasa man li yaqaada baadu waxdan najasa mu ne fa ba jóge fa la fa xew lépp xam ko fa ñépp maase ci jël jël seen lépp jébbal ko Sëriñ ba boo demee seen ndege ni dañ lay wax nela ne la Mauritanie gépp dañoo juyoo ci lépp am des mbirum Sëriñ Tuubaa mbirum Sëriñ Tuubaa nag ña doon murit sa ña ko doon ñëpp maase nañ ci dëppoo ci mbirum sëriñ bi muy tawfeex ju ko suñu borom defal mu de jóge fa ñu indi ci yéen xam ngeen sabab sa taxoon ñu indi ko fa ngir bëgg koo ber ngir xam ne Sëriñ Tuubaa eh, fu mu nekk ñëpp dana ko fekk te bu yàggee fële ci mursani dana mujj alamu islam bépp dana def yoon na say topp ci ginnaawam ñu indi ko fii ngir ber ko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 Euh, soxna Mariama Jaxate woy jur Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Serigne Souhaïbou bi mu fi bàyyi ko ci safar ba ci njëkk wax nañ ci la ko Serigne bi tàmbalee ci biir kër gu mag booba it Serigne bi yëgleeg ko ñu teg ci ñaari at wala ñett sëriñ bi xëy woote ndax dégg ngeen xissa bi ni ko Serigne mu daay busa nettalee ca gàtt ba Serigne yëkkëre bi mu ko Serigne bi wootee nag ba digal ko taalibe yi yónni ko Serigne Abdou Dieng Balla Fani wax ko ne ko na ko yëgal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 ginnaaw bi sëriñ bi wax ne loolu bu ngeen ko defee day rey sunna sayidna ibrahim woyu laa day mel ne biddaa taman du ma def biddaa moo ne nañ ko tudde ak màggal kon baatu màggal ci sëriñ bi la jëkk bàyyi ko daal di sa teg kàddoom yi teddee ne néew ma moo gën tabaski waaye mu yéen de moo gën tabaski jiyeen kon bis mooy suñu lépp kon bu agsee lépp lu ab bi man ci xelam ci xalaatam ci pëstifam ci yéenam ci jëfam war naa jël lépp jëmale ko ci bis moo tax keroog ba ñuy def ndaj ma ci njaarim waxoon naa leen neneen sëriñ Abdul Ahad Mbàkke nee na màggal Tuubaa mooy suñu fête indépendance loolu nag la tax mu wax ko moo tax ñu jot suñu bopp ndax bu ñu ko jot bu bu màggal Tuubaa amutoon kat sëriñ bi dem liggéey liggéeyal boromam kon nag ni ba ba nag ni ñu ci loxo Tuubaa bi kon loolu war na ko fàttaliku bu baax sëriñ Saliou Mbàkke daana wax ne bis bi sëriñ tubaa nee na ñaar bu ñu dendee kii di ko màggal kii di ko ñàkk màggal waxtu ne kee di seen la ko kii la ko kaja des tiima sëriñ Abdou Khadre Mbàkke nee na Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbàkke moo ko waxoon ne ko sa baay de nee na ma amuti bis waaye suñ borom ca kàttanam ak xirañam bis ba màggal Tuubaa da agsi ci àdduna bu ñu demee ba ëllëg ci àjjana kenn ku ci ne sa kër bis ba daa màggal Tuubaa gi daa agsi bu ñu agsee kenn ku ne da nga yëg xéewal yokkuwaat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 lam yusbax ila misliha wala yusbax ila misliha wasalabta ilaya fi yowmi xatti heesal xatta alqurana wa lisaan alarabi wa lisaan alarabi wa manaafi dunia wal axirati fihima fa salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yaa man jahata haasihi alqasidata ahabba ilayka min kulli mawzunin qablaha baatub al arnab dugg ci biir mooy al ijaabatu mooy alif bi raa ji di retan noonu gi di nafa baa gi di barakatu kon Sëriñ Tuubaa léppam ay mbóot la kon noonu la ko wéyale ba vingt 1927 mu yibbi si Tuubaa ginnaaw mi itam ki ko njëkk a di ay Cheikh Mouhamadou Moustapha ko ca ndigalu Sëriñ Tuubaa ko daa defe ñëpp di ko ànd ak moom ba 1945 ak Cheikh Mouhamadou Fadil ñëw bi mu dikkee itam diggante taalibe Sëriñ Tuubaa yépp danañ koy tuxal si fii muy ndigalu sëriñ Touba ngir xam bi yi dem itteelu woon sëriñ kon nag nit ñi li ñuy ku nekk nangay ngay gisee ak na ngay waxe waaye am na loo xam ne jërul guddali wax bu ko sëriñ Touba santaani wutoon itam te Cheikh Mahamadou Fadel xalaat ko santaane ko yëpp te sëriñ bi su ko waxee doy noonu sëkk ci ndigal Cheikh Mahamadou Fadel boo ko santaane woon itam amul dara luñ ci xalaataat lu su jàpp ko ndigalu sëriñ Touba kon loolu jëru guddali wax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 ginnaaw bi itam bi nga xam ne bàyyi ko na fi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw mu njëkk a wutu Serigne Touba ci ay sëtam wóoyee daal liggéey ba na ko kilifa bi daa defee ba ñu fi bàyyi ko itam ak Cheikh Sidi ñëw wóoyee daal liggéey bi ak ndigal la na ko kilifa bi daa defee ba bàyyi ko fi yàlla def nag Cheikh Mouhamadou Mountakha mii fi nekkee Serigne Touba tey ñëw wuutu leen ca liggéey ba te kàddu yama yëkkati démb moo ma ko wax na ma yaar rek ma fi bàyyi.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 nañ xam ne ndax màggal gi tey ren dafa tombe ci li ñuy wax contexte waxtu wu xat mooy wér di gi nga xam ne suñ borom da ko wàcce ci kaw jamono te moo xam la tax mu def ko ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax waaye nag neen la ci Serigne Touba tontoon ca pest ba ci njaaram rek lay wax ndax nee na Serigne Touba bi taalibee ñëwee di ko wax ci pest bi sëriñ tubaa dana leen mbindeefum yàlla la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 ndax ab jàmm balaa suñ borom nangu ak njaamam lépp lu yàlla dogal ci moom da koy neex kon Serigne Touba nañ xam fa mu nekkoon ci biir loolu itam naju ci suñu xel dal danaa ci dellusiwaat li war a tax suñu xel dal ci kon Cheikh mun taxaa wax na ne mu ngi soññ taalibe bi yépp ñu góor góor nag ci def tawakkul ba a def tawakkul wakiilu ci yàlla.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 ba ca des mooy fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun loolu itam xam-xamu médecine di ca tàbbi nee na kon li nga xam ne wàllu docteur yi santaane nañ ko ci lu ñu war a wattandiku te la ci jiitu mooy masque yi nga xam ne santaane na ko na ko taalibe yépp maase ci di ko def góor góorlu ci def ko ngir xam ne ñoom ci seen xam-xam jàpp nañ loolu mooy la jiitu ci la ci war a musal nit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 jël lépp fam jóor ko Sëriñ Tuubaa mos see jëfandikoo dara lu weesu alxuraan ak xasida ak wérul maaxus ak ak ak ak ak tudd yàlla kon kene foofa xam ngeen ne rëgalu jàngoro kon bu ngeen gisee moom di ko def day won nit aw yoon kon nee na mi ngi koy digge taalibe Sëriñ kon nit ñi itam ab taalibe wërta tànnal boppam la ko ab sëriñam tànnal mooy li ci moom alxayru fi maxtaaruhu muxtaaru laa fillati nufusukum taxtaaru jàngoro ji am naag amut ak yëpp bu suñu yónnee ndax jàngoro li Sëriñ Tuubaa wax rek is laysa ma maasuman min al marad loolu lépp day guddali wax Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk yaa nekkal fi suñu Tuubaa boo xasee gëm ne am na digle ci mu ci war a wax kenn du war a jéem a lijjanti jàngoro ji amul loolu weddi waxe sëñ bi la te loolu kon war nañoo xoolaat suñu taalib wala suñu murit ndax ab taalib kat du xool jub ci xelam.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 ndax kon suñ yaakaar dañ koy weddi waat te yëguñ ko ndax ab taalibe ci kanamu ab sëriñam dafa mel ne dafa war a mel ne kal mayyiti bayna yadayil xaasilihi ab néew ci koy sang du ko laaj foo may foo may jëme Sëriñ Tuubaa wax na ko te Sëriñ Tuubaa wax na ne wa maahu salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari bokk na ci li tax murit saadix ak muritam wér mooy lu ko ab sëriñam digal wërta tànnal boppam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 bu ñu amee lu ñu lekk tey mën nañoo bañ a am lu ñu reer kooko masque yombut ci moom boo ko ko digalee dana jafe kon sëriñ bi nee na mi ngi digal mboolem taalibi sëriñ Tuubaa yépp kenn ko ci ne lu ci waay man ci jënd ay masque def ko àddee sëriñ Tuubaa joxe ko ngir jàppale ko ñi ko seen yoon ñi nga xam ne seen kattan ak aggu ja natt nañ boo wax ne màggal gi daaw lu mat juróomi million yi daje na fi sëriñ bi nee na bu néewee ba néew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 ñu def taxawal benn commission bu yaatu boo xam ne dañ ko yaatal ci dëkk bi buñ ko dajalee yóbbu ko ba ci sëñ bi nu mu ko santaanee ñu war ko tasaare ci nit ñu def ko kon loolu itam ñu ngi ciy soññ bokk taalibe bi yëpp di euh, gërëm nag bëgg ñëpp gën a bàyyi xel waxtu fi mu toll ci biir lool itam nag moo tax sëriñ bi ngir bàyyi xel waxtu wi ndax li jiitu ñun ndigalu sëriñ Tuubaa ndigalu sëriñ Tuubaa moom bu ci suñu bakkan doon desit jar na ko ci ñun bu ci suñu bakkan doon des te sëñ bi foofu la nekk bëj suñu suñu bakkan doon des itam ndax saxaaba yi kat seen alal amwaalahum wa anfusahum bi anna lahum janna anfusahum wa amwaalahum bi anna istara min al mu'min anfusahum wa amwaalahum bi anna lahum janna seen alal ak seen bakkan lañ leen laajoon ñun nag ndigalu Sëriñ Tuubaa dara gënu ko foor ci kon bu ci suñu bakkan doon des jar na ko ci ñun bu fekkee ay góor lañ wala li ñuy wax dëggul ci ñoom man de ndigalu Serigne Touba lii lépp lu naaru dox sama digg moom yàlla na yóbbu sama bakkan te xam naa ne lépp ci taalibe yi foofu lañ ndax wóor na wóor nañu ne ko defee Pastef te dara ñu gisal nekku ca Serigne Touba la ci musal bu fekkee yàlla tudd na sa la war a dese sëñ bi bëggee ko noonu it booy faat di kon nag loolu bu ci kenn am ci tànge te xam ne Serigne Touba. sëriñ Sohaybu bu daana nett li am na ko ko waxoon ne ko yéen kat damaa gis ngeen fonk docteur lool te ma gis sëriñ Tuubaa fonk doon docteur sëriñ bi ne ko waaw sëriñ bi de daraa jàkkaarloo jàngaro na ko jàngoro bayil diw waaw comme nag loolu moom kenn ëggu ca daraja jooju ñun nañuy fexe ba jël suñ lépp jëbal ko sëriñ Tuubaa tey tey tey tey tey wax ak docteur yi sëriñ Tuubaa nit ñëw na wér di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 kon sëriñ bi nee na ci li weesu lépp ak li agsiwut mi ngi leen sant di leen gërëm leen ñaane ci barkeb sëriñ Tuubaa mi nga xam ne li ngeen di jëf lépp jëmoo tax kenn ku ci na fay taxaw la te nga day cee di gërëm itam ñi nga xam ne seen maam yi ñoo njëkk a topp sëriñ muy seex sëriñ Tuubaa yi sëriñ bi nee na mi ngi leen sant di leen gërëm bu baax ndax kenn ku ci nekkat taxawaay ba sa maam ju tedd ja taxawoon ci sëriñ Tuubaa ndax ñoom kat ba ñëw ci sëñ bi rawat na ñi ña njëkk ñëw dañoo jaayante woon rek ngir ëllëg waaye jàpp ñoo ne sax dara àdduna nekk fekk ci fekk bokk ci ne sëriñ bi gërëm la toftal la mbooloo àdduna ci dund ak diiru sa dund njaboot kon ñooñ ñooñe itam sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant ndax la sëriñ Saliou Mbacké daa wax rek wax ne bu ñu wax yoon yi mooy seex sëriñ Tuubaa yi ndax bu tolloo sëriñ Tuubaa akum njabootam la jox kon sëriñ bi leen mi ngi leen di sant yéen itam di leen gërëm di leen ñaanal gis na positif yi ci li yos lépp ni ngeen ci doxee digg moom kenn ku ci ne li ngay jëf sa digg moom woo nu ko ne bu fi sama am nekkoon jëf ji du ko weesu kenn ku ci ne xam na ne boo doon jëfal Sëriñ Tuubaa itam doo ko weesu kon nag Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo leen tax di jëf mu ngi leen di ñaanal ci dara jàmm kenn ku ci ne mu gàtt ci sa jëf dafay la ca lu ko suñor di gërëm nag mboolem taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp bayur kenn di gërëm it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 te xam na ne jubaay Sëriñ Tuubaa kenn du fi ñëw loolu di la waaye li ñu war a sàmmonteeg àdduna ñu fexe ba sàmmonteeg moom di gërëm itam daaira Rawdu Rayaahiin nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu xam-xam ba ci université bi ñoom la ko sëriñ bi teg ci seen loxo ñoom itam ba bañ jotee ndigal li ba nëgg ni ci jamonoy sëriñ Saliou Mbacké ba nëgg ni ñu ñu ngi ciy taxaw taxawaay bu rafet boo xam ne at mu jot lu ñu jëfoon danañ ko yokk sëriñ bi neen mi ngi leen sant bu baax ci ñuy jàllale li nga xam ne mooy njàngaleem sëriñ Tuubaa ba ñi nga xam ne xamu xamuñu woon sëriñ bi di ci gën a gindiku di gërëm itam Tuubaa ci kanam ñoom itam seen pëstéef ak seen taxawaay adduna sépp xam nañ ko ndax waxuma la ci màggal bi waaye diiru at mépp lépp lu sëriñ bi yëkkati rek ànd na ko ñoom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 ndax bañ tàmbalee màggal gi ba na gën ñoom itam ñu ngi koy ànd ak ñun te mosuñ cee toqi mosuñ cee dàcc di gërëm itam daayira bi nga xam ne moo ëmb doom doomi cheikh nga xam ne at mu jot bu premier safar bi tàmbalee ba ñu àgg ci bis ba lépp liggéey bi dañ koy ànd ak ñun ci na mu gën a rafet na mu gën a baax di ko defee positif di gërëm itam waa comité organisation bi nga xam ne yàlla def na mu nekk ci seen kanam te sëriñ Ousmane ne ci seen njiit maa ngi teg cant gi ci loxo mu jàll ko ci mboolem commission yi nga xam ne ñoo seq comité bi yëpp di leen sant di leen gërëm bu baax ci seen taxawaay ndax liggéey bi kat mu ngi bëgg yàgg ndax 2009 ba nëgë ni du benn at du ñaari at waaye waxtu ne seen yitt ak seen posté ak seen taxawaay day gën a yokk di gërëm itam nag seen kilifa yi nga xam ne bi liggéey bi duggee ci suñu loxo kenn ku ci ne damaa dem ba ci yow nga tànn ndaw mu teewal la ci biir liggéey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 te at mu jot ñoo daal taxawu euh, ñi nga xam ñoo jàng alxuraan xasida ñoo itam seen positif ak seen taxawaay ñëpp xam nañ ko mboolem ku ma fàtte itam nga xam ne kenn jëfut ngir ñu sant la da ngay jëf ngir seeral sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa mi ñu seeral nag am na bor dafa am ak pay kon kon sëriñ bi nee na mi ngi mi ngi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm itam waa média bi nga xam ne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 li ñuy jëf di ko jëfal sëriñ bi yàlla nañ ca dajeeg poyu sëriñ Tuubaa di gërëm itam nag waa nguuru Sénégal ci njiitalu président Macky Sall ndax loolu bokkoon na ci li nga xam ne sëriñ bi waxoon na ma ne naa ko jot nee na mi ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax moom yàlla da ko booleeg moom lu yàgg njëkk muy nekk jotaayu sëriñ Tuubaa moom ci moom yaakaar lool nee na bi jotaayu sëriñ Tuubaa bi ak itam.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 waaye boo ci boolee assainissement bi ñu bëgg a dikkaat mi ngi tellu ci boobu 23 milliards ak étude bi nga xam ne ci weeru septembre bii lañ ko war a tàmbali ngir xool réseau bi ak li koy defaraat xool liñ ci war a sensibiliser lépp ak fexe ba ndox mu neex bi ñëw Tuuba euh, cabinet ba ko ba ko war a defar gagné ne marché bu war ko tàmbali septembre bi loolu itam liggéey bu rëy la boo xam ne itteeloon na sëñ bi ndax sëñ bi damaa waxoon ne ma xamalal ma ko ne ko ci université bi. bu toon moom day somb bu rëy waaye kon ci ndox mi sama yitte ci laa koy jëme loolu itam ba mu ko yëgee def na ci yitte ak yeneen yi nga xam ne teewlu nga ko waaye loolu rek mën naa ko ci tudd ngir sant ko bu baax ci ni ko sëriñ Cheikh Mamadou Mountakha santaane di ko ñaan sëriñ Touba mi nga xam ne lu ñu def ci jëkk bi rek moo tax yàlla na ko ci fay lu koy njortoon di jeexale rek ci loo xam ne ñëpp ci war a jàngate ngir mu dolliwaat suñ pëseef ak suñu yàqin suñu digg ak Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall dafa tëdd bu wéradi Serigne bi yónnee Sëñ Mor Talla Fall ci moom nekk boo demee nga seetal ma ko man demee fekk seex Ibrahima boobu wéradi gi sonal na ko ndax loolu nit yàlla ay nattu la yu tege ci ba Sëñ Mor Talla ak see ci maam Cheikh Ibrahima ko ne ko Serigne bi woon naa la ko seetal ci wéradi gi. Cheikh Ibra ne ko euh, nit de boo ku weer di boo koy seet da koy jox lu mu yóbbu ndax da nga ko joxub yóbbu ne ko seetale ma ko lii ana alal la sëñ Bàmba jox nga seete ma ko mu ne ko moom du joxuma dara waaye nas tuuti rek euh, bi suñ mortaal faal waxee moom bay jub di tàggoo Cheikh jub di ko gunge daay tàggoo wér digga tàggoo wér digga ba mel na dara mosu ko jóg mboolem lu newoon coom ci kàttan ak dellusiwaat